ويسر لي أمري وعد عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله نجي تنبليكي وعنده مفاتيح الغيب pour ñu tàmbalee suñ borom mooy wax ni dafa am yoo ko kenn moko ko yore ci loxom bi moko téyel boppam ndara kum neex nak ci ab yonent la koo xamne ko bax kum gërëm la motax mu ne waaye ndoxoo nek na fa mom borom bi mafaatiwul xay bi màng ci ni wërsëg yi ak taw yi ak yi fàdd yeb moko ko yore ci loxom bi moy tibbu jox ku la neex ku ko neex mooy xam kañ la wàccee ndoxam mi moo xam jigéen kañ lay am doom moo xam jigéen ñaata doom la ci biir bi moo xam bakkan kañ lay faatu moo xam bakkan fan suuf lay faatoo ku dul yàlla xamoo ko ku dul yàlla xamoo ko wala dooma faatul xay bi Buxaari yi moo solo ci hadiis yonent bi yonent bi ne ma faatul xay bi nee na juróom yëpp la mu ca suuf inna laa xendoo xel mu saati benn baa ngi noonu inna laa xendoo xel mu saati yàlla moo xam yóbbal xiyaamati kañ lay taxaw kañ la mu saati muy benn muy natul lu xaysa mu wàccee ndox moo xam kañ la ndox di wàcc muy ñaar fa yaxlamu maa fil arxaam yi moo xam la ci biiru jigéen ji góor la wala jigéen la kenn wala ñaar la muy ñett wa maa tadri nafsun ma saa taksibu xadan benn bakkan xamul lu ñu am amut ñeent yàlla danga ko xam muy ñeent mu ne wa maa tadri nafsun bi ay addin tamuut benn bakkan xamul fu muy dee amut juróom yooyu ñu mafatul xay bi yawmal qiyaamati kañ la yàlla xam kañ lay taw yàlla xam jigéen lu mu ëmb góor wala jigéen kenn walla ñaar yàlla xam ku nekk ñun la ngay am suba yàlla xam ku nekk fan ngay faatoo ji ban suuf la yàlla xam mooy mafatul xay Buxaari yi mosula ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam ne kon nag la yàlla maa du ko xam mukk ila ko dul moom moo juróom yi wax léegi bu yàlla moom moom dana xam moom borom bi maa fi barke li sosu ci jéeri ji xam na ko wal baari ak géej gi xam na ko la ca sosu xam na ko bu may tas xotunu borom bi ne du wadd min waraqatin ci benn xaw min bi dafa nekk xarfu ndollant dama tasqutu waraqatu moo doon faayal ñu jar ko ila yaalamuha ndax yàlla xam na ko wala habatin cageen pepp boo xam ne fi sulumatil ardi mu ngi lëndami suuf si juróom-ñaar wala radbin cageen lu tooy lu mën a doon moo def ko nakkira lu tooy lu mën a lu réew lu tuddi jeem wala yaabisun cageen lu wow amul lenn ci yooyule ilaa fi kitaabin ndara mu ngi téere boo xam ne mu bindin bu leer nañ la te muy lawhul mahfuus muy lawhul mahfuus borom bi moom moom borom bi subhaanahu wa taala da si mooy ki nga xam ni itawu faakum dana mu fàll leen bi leeli ci guddi waxtu ngeen di nelaw nelaw deegu ndaw la borom bi da bu ngeen di nelaw rek yéen ci deegu ndaw yàlla mu dana ma xam moom borom bi ma jaraxtum la ngeen di fàggandekoo bi naari ci bëccëg bi ku nekk la ngay am ci bëccëg bi ak fa nga jëm njëkk ngay xëy borom bi xam ne ko boo jog rek xam na foo boo déparé foo jëm looy tasel looy gis looy am dana la naqadi wala dana la neex xam na ko ma jaraxtum bi naari su ma yafaasukum topp mu delloo leen fii ci bëccëg ba wala ci ruuxu ga ka doon nelaw mu delloo ko ruux gi moom mu yee ko mu jóg dem tax soxlaam ya li yuq daa ngir jeexaleef ajunu dig boo ne musam buñ tudd la dund ko li yuq daa ngir jeexaleef xam ne musam man buñ tuddoon la kenn du dee mukk se la jotul yaamatukum fii mooy delloo leen seen ruux yi ñoo doon nelaw ñu ga delloo nañ ko borom bi neen suma marjiookum topp seen delluwaay ilay jëm na ca moom nag su ma yónagookum topp ma xamal leen bi ma ca la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tàmbaloon di ko jëf ma xamal leen benn borom xam-xam ne ne wali fi xayaalil silli akbaru ibratan liman kaana fi bahril xaqiqati raaqi suqoosun wa askaalun tamur wa tanqadi fa taf naa jamian wal muharriku baaqi loolu la wax nee na li ñeen na moon ci jineer jineer ay ker ay ker yu dox takk ndere yu mel noonu am naa ci waraate yooyu gën a ëpp solo ci waraate yi waaye nag ci koo xam ne day xuus di yéeg ci géeju géeju xaqiiqa li man kaani fi bari xaqiiqati raaqi ñu ndax moom ne suqoosun ay jëmm la waaskanun ak ay melo tamur yu jàll watan xëy te day jeex parce que dafay jeex jëmmi lépp waaye wala moom xaaral ko nag ka yëngal jëmm ji nag lii nga xalaat ba ak xel ma baaqi yi moom dafay def loolu ma jaratum binaar borom bi ne xubu borom bi alxaayiru mooy aji not foo xebaadi yi ci kaw jaamam yi mënut ci kaw jaamam yi maanaa moo leen di yëngal moo di yëngal mooy leen méngoo seen mbir yépp mu ngi loxoom xam nga lu bëgg a wax lu mu àtte kenn du ko delloo lu mu delloo kenn du ko ah wéyale mooy joxe yàlla mooy tere yàllaay jokk yàllaay dagg yàllaay lor yàllaay jëriñ amul ko ne delloon àllum nam ku bëgg a wér wérul ci yàlla ku wér fu dul yàlla rek mujj mujj nga daanu moo teg loxoom ci mbindeefam yi nu ko neex la di soppate soppa du ko neex amal lu ko neex jëlee fi ko neex fal ko neex fole ku ko neex dong nag moom rek moo tax mu ne wa yusul mooy yebal aleykum ci yéen afasatan al ay malaayika yoo xam ne ñoo leen di wott afasatan malaaka yi nga xam ne ñoo bind seen jëf yi moo xam lu baax la moo xam safaan la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne yëpp doomu aadama fi borom mu ko boole ñaari malaayik ki nekk ndeyjoor ki nekk càmmoñ bu defee lu baax ki nekk ndeyjoor bind ko gaaw defee benn bu baax bind ko fukk yu baax bu nekkee bu defee lu bon nag ki nekk càmmoñ bëgg bind ki ne ndeyjoor na ko déedéet xaaral ndax mu tuub xaaral ñetti waxtu ñetti waxtu bu tuubul nga bindi benn bu bon xoola boobu sens bu tuubul nga bindi benn bu bon ñetti waxtu kon mooy xafa say mooy malayka yóole am ñu ne déedéet nee na liñ namm ci loolu malaaka yi nga xam ne ñoo yor jëmm ji xew-xew jamono yi nga xam ne ñoo koy xaar ci gàkk-gàkk yi ak loru yi muy fukki malaaka ci bëccëg fukki malaaka ci guddi ku nekk boo xëy yaa nga fukki malaaka loolu nar a dal yor su dente moom ndim yaa ngi jéem a moytu nag ndim yaa ngi jéem moytu wante boo moytu na ngi bàyyi la génn ca ba set doon ci jàngale te balham bu baaxoraa mu ci kanam insha allah te balham bu baaxoraa ba mu nar a attaque yonent yàlla Moussa malaaka dox diggante moom diggante moo Moussa mbaam mi war mbaam mi mënta dem ndax yàlla yebal malaaka yee mu dëggalee bopp nag suñu borom ne malaaka yi bàyyi leen mbaam mi dem kon bu ne malaaka yi di ñëw Adama fukki malaaka bëccëg fukki malaaka guddi da fekk nit ki di jéem a jub jëm ci lu neex bu suñu borom ne malaaka yi ko fexeel leen ko yaa musal ñu ci moo tax borom bi nii yusul aleykum hafazatan ay malaayika yoo xam ne ñooy takk seen jëf yi xataa isaa ba mu ñëw ba mu ñëwal ahadakum kenn ci yéen al mawtu dee bu ko defee taw fatu dina ko faat rusul naa fi ndaw ya malaayika ya ñoo koy faat fi ndaw ya ñoo koy faat te waxum ñoom malaayka ya laa yafarutoona duñ gàttañ lu de li ngeen digal dañ koy def nu rawoon nañ ko nañ ko waxee duñ gàttañ lu bokk waxum laa yafarutoona malakul mawti mooy malaakam deemi waaye dafa yor ay ñu koy dimbali nag ñu koy dimbali léegi ñu koy dimbali ñooy téye ruuxu gi di ñoddi ruuxu lu diis la lu naqadi génne la ña koy téye di ko dindi di ko ñoddi ba wàjjee jeex mu rocc ko ca yaram wax bu ñëw ci put ga ci put ga lay ñëw bu ko ñoddi ci tànk lay jógee tànk lay jógee bu ñëw ci put gi rek mën ko mooti doo ko jël mottu li mottu li moo tax ne tawafatu rusulu jëma takk la xam nga suñ ndaw yi du mu waxut rasuluna rasuluna la suñ ndaw ya kon mooy ñi nga xam ne mooy axwaan ya ñooy dimbali malakul mawti ñooñu la bu ko defee nag bu dee nga xam ne ku texe la yeneen yi ñoo ñëw malaaka yi malaaka yërmande yi malakul mawti jox leen ko ñu bëgg ay nekk ci biir aljal di xéew bu dee ku texe la malaaka yi ñoo ñëw malaaka yi mbugal yi yëpp yóbbu ci sijjiin roog gu nekk ci biir safar yal nañ ci mucc ñu lay demee moo tax mu ne waxum laa yu faritoona ñoom duñu sàggan te xam nga xam nga malakul mawti ñu ngi tiimee téere bi di tiimee àdduna bi di tiimee àdduna bi malakul mawti di tiimee àdduna bi ku nar a faatu rek téere moom mooy wàllu ci ron aras ci aras ma xam ne kii nar faatu nga xam ne kii dafa war a dem dara dugg ci wuntu du ko moom yàllaa ko may loolu mel mbagga maa nga penku mel maa nga xam mu tiim bi ni nga tiimee si téere moo tax benn bis mu ciy jël ñaata junni roo ñaata junni mu mal ko noot moo tax borom bi nekkoon nag tumurdu topp ñu delloo leen ila laa jëm ci yàlla mawlaahum mi nga xam ne mooy seen aji moom borom bi nga xam ne alxaq moo sax mooy dëgg alaa waawee la loo ñeel lakum borom bi alxukumu àtte bu dagg tàppit mooy alxukumu jaam wi dañu wéel moom dañu dagg def mu wéele waaye bu dagg moom yàlla ko yore alxukumu loolu moom borom bi asramool xaasibiina moo ko daggaa ci rek jaamam yi ngir wàlli bëccëg lu waxal ñeel mbindeef yi ne leen man yu ne jiikum kan moo leen di musal min sulimaatil barri ci lëndëmi jéeri ji wal baari ak lëndëmi géej gi te doonoo ngeen di ko ñaan te du raan di yuuxu ca kaw naan rabbana yaa rabbana wa xufiyatan ak di wax ndànk ci suuf nan in an jaytana wala indi musal nga ñu yow borom bi minaasi ci njàqare gi tartar yi leen nag kon dañ nekk mën a saakiri na bokk ci way sant yi kon dañ ko def xul na leen allahu yàlla yun a jiikum am jàng na jiikum nag im jàngil yun yu na a jiikum moo leen di musal mi naa ci moom min kulli karbin ak ci bépp njàqare su ma topp yéen ñëpp tuuti ko na ngeen di bokkaale bu dee ba mu leen rek ngeen bokkaale ko keneen xul na leen xamum borom bi alqaadiru mooy aji attan ala an yabaasa mu yebal aleykum ci yéen asab mbugal moo xam ne min fawqikum mu tukkee ci kaw asamaan mel ne ay doj ñu sànni seen kaw wala xàccu jibril ga dal seen kaw min fawqikum aw min taati arjulikum wala ci seen ron tànk yi muy mbënd ma comme ñu taxaaroo na ya mbënd ma ay yëlbisukum wala mu jaaxase leen si yaan ay pàcc-pàcc bu ko defee ne buy sax mu mosal baadokum leen ci yéen baax sa baaji mbugal ñeneen ña mooy ngeen di xeex bi wàccee nag yonent bi ne haasa ahwanu wa aysaru mujj bii rayante bi moo gën mu ne lu ne ansu bi waxe laal këriñ dafa mus lay ci yàlla waaye bi mu waxee nag bu ñu sax ba'dakum ba'sa ba'din mu ne haasa ahwanu wa aysaru ci yàlla moom an la yow sa aleykum an saabal min faqrikum dafa muslu ci yàlla amin tatajulikum muslu ci yàlla waaye ba mu nag aw yulbisukum aw yulbisukum siyaan wa yuziqu ba'dakum ba'da ba'din mu ne haza ahwanu wa aysa lu yéeme mu wax ni njan naa suma borom sama xeet bu ñu reyante sama borom xaayal ma ko ne ma maa bañ ma yuma la ko loolu la wax saaltu bi an lay xela baasa ummati baynahum fa man aniha mu ne moo il faut ñu reyal ñi njëkk ñii dama leen wanuloo suuf ñii ma daa ko yuux leen ñu dee ñii ma teg seen kaw ngelaw ba ñëpp jeex tàkk sa xeet nag loolu du leen dal waaye dinañ reyal mu ne moom suur xoolal kay fa nu sarifu naka la ñuy ayaati kaawteef yi wane kenn yàlla ak kattanam laa lu amal na ko yëppoona ñu dégg kon ñu xam wa kazaba weddi na bii ci alquran ji xawmuka sa mbokk yi woo tamit xaq mooy dëgg kon ne leen lastu déet man aleykum ci yéen wakilin mais aji kuréet di garanti li ma mën daal moo jotal rek li kulli na béy ñeel na xibaar bu nekk mustaxarun ak saxuwaay de waxtu boo xam ne te lay saxee wa saw fa taala mën a na ngeen xam nag waxtu boo xamee ne ma ñëw na ku pàcc la wi daa raay tan dem gis nga la ñi nga xam ne yokkoodu na nga xuu fi a ci alxuraan ji faari da nga du mooyu anu wëlil leen du mooyu leen bu leen toog ak ñoom xata xata yokkooda ba ñu xuur ci hadis ci wax yoo xam ne xayri yi du alxuraan wa imma yunsiyannaka ne fàttaloo na la nag seytaanu falaa taxoon bul toog baada sikra dana fàttali ko ànd ak ñoom bu seen seytaane fàttali ba toog ak ñoom seqal na ci yar ñu ne ñoo kenn jóg bu toog maa xawmi zaalimiin ànd ñi nga xam ne dañu nekk ni way tooñ ko def wa maa ala lazina warut ñi nga xam ne yettaqoon ñu ngay teer lu neexut yàlla misa bi ci seenu réglé monsieur yiñ ci dara de walakin li fi nekk daal li war ci moom ci kra fàttali rek laalum ama nekkoon ñoom yettaqoon ñu teer mm, pus ci lu neexut yàlla wa sori na nga bàyyi ñi nga xam ne itaqaso dana ñoo jàppee diinoom seen diina ji laya ban ci foofu la wan ak caaxaan di sabote wa xaratum borom bi ne war na mu leen alxayaatu dund bi adduniyaa bu jigéen bii moo leen nax wa zakir na nga waare bii ci alquran ji li an tubzala ngir bañ a jébbaleef ci alkade nafsun bakkan bi ma kasabat ngir dafa gànneeku te lay salaatu ko ñeel mi dooy laay wala borom bi subhanahu wa benn aji méngoo déw laa sarfi on da ngeen aji tinu ku koy bugal ma amul mu ne wa in taadil ndem jotu na sax ba mu bakkan ba ku la adil du jotu laa xasee bët jëm moom njot ga kenn du ko jël walaayka lesiine ñoo ñooñu nga xam ne ublisoo jébbaleen ne leen ci alkande ba jébbaleen ne leen ci alkande bi maaka sa boo ngir la ñu fàggandeku alo soxna ñaan leen saraabu naan goo xam ne min xamiim boo ci ndox mu tàng jir waa sa ak wala moo xam ne ale mun mécci tëll bi ma ngir la nga xam ne ka nekkoon nañu yëg foroona di ko borom bi pour waxal ne leen an na doon ndax ñun dañuy jaamu min dooni laay wala fi yàlla maa loo xam ne laa yënguwoonaa dañu ak jaamu wala yënguwoonaa duñu lor ak ñàkk jaamu kon dañu gàttal xel nag tey na woon raddu def nañu delloo xala xaabina suñu dëgg ya bu ñu dema nekk ci yéefar ya ba da isa daana gannaaw ñu gindee allahu yàlla gëlde si comme koo xam ne istawatu këfu na ko sànni ko sa yaatiinu saati ci suuf soo xam ne dafa sori xayraan mu aji gëlëm loo ñeel ne ko ashaabun ay àndandoor yoo xam ni ya doonoo ñu koy woo lébu daa mu naan yi itte naa ñëwal ñu ñëwal daa ñëwal fii du fële de kul ne leen inna hudallaahi naka jubu yàlla wal hudaa mooy njub mooy gi te waxoon na santeef nanu di muslima ngir nañu jébbal suñu bopp ngir rabbil aalamiina ñeer borom bi déebi lii la ñu sant Abdourahman doomu Babacar Siddiq Abdourahman njëkk muy tuub dañ ne moom a waxoon way juróom foo dem jàpp ci xërëm yi ba ne Aïcha na da ko wéddi ne Aïcha moom d'accord ci ne ma xadisu ifk dong mu wàcc seen waa néeg xadisu moom la wàcc te tàggaatale ci moom tàggaatale ci moom waaye nag nee njëkk muy tuub moom Abdourahmane du baax ko si biir ma ne loo bàyyi ma ko ñëwalaat dem ci xërëm bi yalla wàcc aay ci yonent bi ngi baax ko si biir dafa seetlu waaye tagg tagg bu tagg bàyyam yàlla moo moo fonk bàyyam moo tax mu wàcc aaya directement ci yonent bi da ko waxal ak gars yi nañ bàyyi mu ne waa an yée yéen ñëpp laa salaata na ngeen taxawal julli juróom wa taqawu te ngeen borom bi waxu moom borom bi la tamit ki nga xam ne tuxsaroona di leen pang léegi ngeen jëm ci moom wala tamit ki nga xam ne xalaqa samaawaati wa bind asamaani juróom ñaar wala arda ak suuf yëpp bilaa xëj ci dëgg borom bi ne moo ko def ba fàttalikul nag yow ma yaqoolu bis muy wax moom borom bi ku nekkal fa yakkoonu lépp nekk waxin la pour nit mën a dégg xam nga waxin la ku fa yakkoonu yàlla bu waxee nit day wax ci li mën a dégg waaye ku fa yakkoonu waxin la rek déedéet ku fa yakkoonu waxin la rek déedéet waaye nag loolu boo waxul loolu pour nu muy amalee doo ko xam nu muy amalee li mu amal. foog mu ne nii laa ko amalee ak nii ak nii waxin la rek mm-hmm. borom bi ne xawluhu waxam moom yàlla alxaqu mooy dëgg loo ñeel ne ko almulku nguur yow yu yunfaqu su bi dem na ëpp sori ci buftu ba nee na keroog boo xamee ne ñëpp dekki nañ borom bi taxaw nag ne li mu ne mulkul yow ma kan la mu am nguur tey ñëpp ne pat mu ne keroog moom kenn am nguur bu ko moom kenn mooy buur bu ko logee moom kenn kese mooy buur xam ba tey ba tey jii moom rek ay buur xam nga waaye dafa am ñu déclaré ne buur lañ ndax am na luñ moom nekk loolu nag kenn du moom dara kenn du ñu nekkoon buur sax ñooy gën doon baadoolo bi amul sens bi amul sens ñu nekkoon buur ci àdduna bi bi amul sens ñooy doon fële baadoolo bi amul sens li ma mën ko yowal ñu ne patt mu ne lii laay waaye du xaar moo tax mu ni alimul xaybi moo xam li fàddu lépp wa saadati ak lépp wa wal hakimu mu aji xarañ ci mbindeefam yi alxabir mooy ko dañ kumpa dañ kumpa dañ kumpa bokkul ak bañ kumpa bañ kumpa mooy bañ nga lump yow bañ waaye force am du lump kumpa nag mooy lépp ne xafeet ci sa kanam mooy xabir da mën a loolu mooy sa la xabiir la huwal xabiir mu ngi dugg ci Ibrahima ak baayam asara asara mi nag am ñu ne moom du bàyyi Ibrahima Ibrahima bàyyi mooy taarix taarix asara baayam ñu daw la wante araam ñoom seen baax mooy baay ñu daw di ko wooyee baay moo tax ñu ne kon Ibrahima kii baayam bu ndaw la waaye kii la xam nag amina déedéet asara mooy la dàkketal bi turam piir mooy taarix mooy taarix maanaam asara mooy sant bi turam mooy taarix am ñu ne ñaar lañ koy asara bàyyam mu daw la taarix mooy bàyyam piir borom bi ne war na nga fàttaliku il qaala ba nga xamee ne wax na ibrahimu li abi ñeel bàyyam asara o qaala moom la la wax ne ko atattaxisu ndax da ngay jàpp as man ay xërëm yoo xam ne da koy jaamu alaata muy sa yàlla na nga ko def ini naka man sa doom ji a gis na ma la wax xaw ka ak sa wax xaw ma ka ak sa nit ñi daal ci tànk di ko xam ne bi ñu ko leer naññi la léegi nag Ibrahima li tax li am Namruud bun Kanaan bu xaabee ñoo ko waxoon ni ko léegi nga follee ko at mi ci ngay follee ko te ki lay folli bu ñu lay doon koo xam ne ci at mi lay juddu bu juddoo mu lay folli na waroon ne kon nag ku juddoo te di góor nañ ko rey ci at moom ci at moom ba dee ba ca mu ne mu ne sax képp am nga jabar doru ko doru ko bu leen bokk ci lal ndara mu gis mbërëg bu gisee bu lal na mu wax dem ba xelam ñaaw mu ne kon xamu ne ñuy def na ñëpp gën dëkk bi dem ci àll bu góor ñi bàyyi bi jigéen ñi kese ci dëkk bi génne ñëpp yàlla dogal nag bàyyi Ibrahima Namrood daf ko wóolu woon trop daf ko wóolu ba dee ba ca àll ba Namrood soxla ci kër ga soxla bu am solo bu ko yitteel xamul nu muy def moo aasara bu fekkee ne moom mooy bàyyi Ibrahima pire am ñu ne taarix la ci tënk mooy moo bàyyi Ibrahima rek moo xam asar moo xam taarix la ne ko nag dama am soxla boo xam ne yow kenn laa ci te li tax ma wóolu la ci li may bañ ci dëkk ba boo tax ma génnee nit ñi yow laa yaakaar ne boo demee doo ko def moo jege sa jabar kaam yónni la ci dëkk ba nag defal li ma la te ñib si ba léegi sa kër mu ne ko maa la gën a fiir ci li nga yow ko woote li nga woote ma la gën a fiir du ma yegg suma kër góor gi def ci dëkk ba ndox yi ndox yu leen ba noppi xelam ne yar si njaboot ga mu ne xaaral ma jaar fi rek ah xaaral ma jaar fi jaar fa yegg ca soxna fa Ibrahima judd Ibrahima juddoo nag yaayam tiib sànni ko ci dex dex gu dex gu dex gu ngacc dex gu ngacc ci la ko yaayam sànni sa sànni Ibrahima dex gu ngacc léegi mu ñëw rek xool Ibrahima fekk muy macc baaraam bi benn baaraam bi muy génnee ndox benn bi génne meew benn bi génne lu muy lekk dax ak yu mel noonu benn bi génnee lem <laughs> léegi Ibrahima màggam bi dafa gaaw li war a màgg ci benn bis ci ci weer benn fan la koy màgg Ibrahima li war a màgg ci weer màgg ci benn fan léegi nag ma am fukki weer ak juróom ba mu ko amee nekk waxambaane ak gannaaw fan weer benn fan màggu weer la kon maa ngi fukki weer a juróom kay nekk waxambaane léegi nag mu ne yaayam mu ne yaayam man kuy sama borom kuy sama borom man man Ibrahima kuy sama borom. man rabbi man rabbi yaa ne ko man yow maay maay sa borom loo cee laaj nu ko ah, ah yow kii sa borom yow <laughs> yow kii sa borom yaa ne ko ah sa baay mu ne ko sama baay kii boromam yaa ne pat daaw dem ci dem ci góor ga ne ko kaay ci guddi gi xaar kaay ci guddi gi kat li mooy laaj kat ñi mu ma ko baayam ñëw mun ne bàyyi ji yow kuy sa borom fekk bàyyi ji mu ko am ne ko yow kuy sa borom kuy sa ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuy boromam mu ne ko man mu ne ko yow kuy sa borom mu ne ko Namruus mu ne ko Namruus kuy boromam bàyyi ji dóor ko mbéj tel dóor ko mbéj ne ko noppil acca noppil bul nga aati Ibrahima dem toppale dem ba guddi gi lëndëm ba guddi gi lëndëm weeru feq génn mu ah biddiw yéen mooy suma yàlla biddiw yéen xam ne ne yàllaay borom ñoo ngi sabati baaji ak mooy suma suma suma borom dem ba yàgg biddiw yi suux mu ne ah luy suux nit sama borom luy suux ah ah sama borom nag kon weer wu borom weer wi la weer wi suux mu ah ragal naa mu sànku mu yàlla gindiwul ragal naa mu sànku jant ba fenk mu ne waaw kay mag maa ngi nii nag kii mooy sama mooy borom nag mag mi jant ba so mu ne saa waay naa ci yéen yéen amu leen borom. ñett yi benn dara gisoo gisoo borom te ñett ngeen gëm biddu bi wala jant wala weer yi man du ma jaamu yi fa la jàmm jeexee na dama ne ko nag jeex na feeg gëmootuma diine ji maa yor dund bi dootuma la may lekk mukk lekk la ko joxati ci lañ ci dugg noonu nag moo tax borom bi bu ko sale ka nekk noonu eh, nuur yi la ñu wane ñun sa borom ibrahima alayhi salaam mu ne ko ta sama waati nguur asamaan juróom-ñaar wala àdd suuf léegi ma ne kon nag borom xam-xam yi sofiyanke yi ñoom dañ ko séparé moom nguur ko ñoom danañ ñeneen malakoot mooy li ñu tiim asamaan juróom-ñaar bu sax aras mooy malakoot mulk mooy ci suuf loolu wax wala xala rek la waaye malakut benn la benn moo tax mu ne wala yëpp kon ngi ne mu nekk mu nel moo xi na bokk ci ñi xam ne am nañ kóolute kóolute xam nga boo xoolee aaya ak ba ca ba ca ba euh, ci yenent bi fee dafa wax ne li nuriyoo min ayatina li nuriyoo min ayatina loolu wax fee ngir ñañ mooy nañ mooy woon Muhammad ci suñu lenn aaya suñu lenn kawtéef li nuriyoo min ayatina fi mu ne nuri ko woon lépp malakoota samaawaati day mel ni kon li Ibrahima gis Muhammad gisut ndax min ayatina la wax andi min léegi nag niñ ko layee borom xam-xam yi dañ ni malakuutu samaawaati wal ardi baadun min ayaati rabbi yi lenn la ci kaw teef yàlla yi lenn la ci kon yéen la mu gis moo mat téeméeri yoon ci li ñu wan moo tax mu ne falama janna ba mu lëndëmee ale ci Ibrahima laylu guddi gi raa gis na mu kaw kaban biddu ñu may suuratu xaala mu ne haasa kii rabbi moy suma borom je déclarer déclaré gannaaw li ngeen di jaamu mom la falamma afala bu musuxé suuxee xala mu la aybu man day duma bëgg ma ko nag al afilina way suxi dedet déedéet ma raa gité al khamara wer wi barisan mu aji fiq xala mu ne xasa rabbi ki moy suma borom falamma afala wa wer wa suxé xala mu la in lam yahdini dem gi nduur ma rabbi suma borom daa kon ne na dem na mu bokk mi ne xawmi daalina nit ñi nga xam ne dañoo sànku fala ma raa mu gisee asam sa jant bi baati xatan ma ji fenk xala mu ne haasa gii rabbi mooy sama borom hada akbar kii moo gën a rëy biddiw moo gën a rëy weer fala ya ma afalat ba mu sooy jant bi xaala mu ne ya xam yéen sama nit ini nekk man baru seen naa wecc maa turikoona ci ngeen di bokkaale lii ay xërëm la man génn naa ci de ba set ci borom ne mu ne ñi nekk man nag wajatu eh, dama jubale waje sama anam lépp di ñeel mi nga ne sama waati moo bina asamay juróom-ñaar wala dog suuf juróom-ñaar ani fan ma ji njëng bàyyi ndëng topp njum ma ana déet man mi na mu bokk ci nga woo borom bi ne dàggawanteeg naagi moom xamoo nitam ña ñu ngi dàggawanteeg moom ci diina ja ak ci xaram borom bi ne xala leen atoa jooni tax da ngeen ni ne moom borom bi subhanahu wa taala wala xafuma duma ragal maa turikoon li le laa an yesa andare mu soob rabbi sama borom seen du ko mu def ma ko waaye yéen moo lu ma dara ba see app rabbi sama borom ku seen lépp lu mën doone yal man ci xam-xam du te ngeen ba kay fa aqafa naka laa ragalee sax maaratum ma asratum ngeen di bokkaale te mooy xalam yi mu ngeen koy ragalee te wala tax wala tax wala yéen du ngeen ragal annakum nekk yéen asratum billahi yéen ngi bokkaale ak yàlla maanaam ngi ne su loo xam ne wàcce woon bii ca jaamu ga aleykum yéen sultaanan benn lay kon nag du ma ragal seen xalam yi fayul fariqayn ana ban ci ñaari kuréel yi xàq moo gën a yell la am ni ci am sécurité am kóolute xanaa ñun la in guntum tam nekk ngeen taala mën a di dara borom bi nga xam ne amono gëm nañ te walam yulbisoo jaxase wuñu bi man seen gëm ga gisul men léegi nag saxaaba yi jàq nag bi sulmin ñu ne yonent bi ah bi sulmin bii de jaaxal nañu ana kan ci ñun moo dul jaxasi ak tooñ yàlla kan la ci ñun mu jaaxaleen toog ba nekk yonent bi yonent bi ne leen innamaa huwa shirk bokkaale ci nam sunu bi da xanaa déggu leen waxu borom bi ca Luqmaan yaa bu nee laa tushrik billaay inna shirka la zulmun aziim kon zulmu bii tooñ bokkaale ci nam bu du bokkaale day xat ba ëpp kon bi sulmin ci bokkaale lañ koy firi borom bi ne walaayeka ñoo ñu loom ñu ne leen al amnu kóolute ci mbugalum borom bi moom ñoom yax mosta doona way gi nekku la ñu wa tilka borom bi ne yii ñu wax nag xojatu naa suñu lay laa wax mu nekk badal ca tilka ba tilka mubtada la hujjatnaa suñu lay atayna jox nañu ko ibrahima alayhi salatu wassalam ala qawmi yi dem ña narfo darajatin xam nañu ko def tanwin ñaari maska ñoo yëkëti ay martaba man na sa ca ko ñu soob wala narfo darajaati man mu daf ko saa ku ñu soob yam jàngin la yëkkati matubaay ku ñu neex borom yi ina la bokk borom hakki mun aji xereñ la ci jëfam ali mooy ko xam la wa am naa mën nañu loo ibrahima alayhi salaatu wasalaam ñoo ko may isaaqa muy doomam wa yaquba ñoo ko may mu nekk sëtam de borom bi ku ne ku ñëw àddina gis nañ ko noohan borom bi jox nañu ko àddina gis nañu ko min qablu mu jiitu ibrahima min suriyati bokk na ci njabootu nooga daawuda alayhi salaatu wasalaam suleymaan bu daawuda ci la bokk waaye wa naka noonu ci la bokk wa yusufa ci la bokk doomu yaquba alayhi salaatu wasalaam wa musa ci la bokk ibni imran waaroon na ci la mooy magi Muusa wa kasaalika nekk noonu ñu fayee nii da gisee ñu fayee almosin ne wala wa sakriya nekk noonu ci la wa yaxya ak doomam ja ci wa yasam na noonu ci la wa yiw ba wala yasaa nekk noonu ci la bokk wa yunus yun ci àlloon yunus wala ta nekk noonu yun ci àlloon nekk doomu haaro doomu haaroon mi nga xam ne mbokk ibrahima la haaroon mi nga xam ne ibrahima mooy bàyyi yun ci àlloon wala bi kullan ku mu ñoom fadal naa leen gënal alal alamina seen mbindee fi ci nu booba wa min abaihim tukkee na ci seen bàyyee wa suriyaatihim ak seen njaboot ga ixwaane ak seen mbokk ya borom bi ne wa tabe naam ñoo leen tànn ñu nekk suñu yonent lii ñu defal leen nag wa moo njubug yàlla yaay dina gindi bii ci loola mais saa ko soo mi ne baadi ci jaamam yi ñoom ñëpp wala aslu ko buñ bokkaale woon ci ci xellale ak nettale laa bitu mu màbb an wali leen kaano yaxmaloon na lépp te ñoom ñooy yonent yi naka bon ñun nag naka bon ñun nag tudd na fii fukki yonent ak juróom-ñett te xam nga ab ko ñaar fukk juróom la andi dina tudd na fii dix-huit ay yonent mu des juróom-ñaar moo des juróom benn Idris ñaar Suayb ñett Saalix ñeent Xoot juróom sor tifli juróom benn daawud ñii la waxul ci saar wii di la naam ñaar juróom juróom moo na fukki juróom ñett yëpp fii nag mooy ñi nga xam ne suñu boo ñëpp d'accord nañ ci vingt-cinq yii ulul azmi yi ulul azmi yi moo ci nekkul ibrahima ngi noongi musangi etaanki yinti muy ululaf borom bi ni ulaayika allazina eh, ñoo ñi nga xam ne aataynaahumul kitaaba ñu leen jox ay téere maanaam al kutub wala kuma ak ya wa nubuwata ak nubuwa bi fi ñëpp ni weddi na mu biyaa ci ban ak ban al kitaab bi wala kuma wa nubuwa bu Ha ulai haa ulaay na ma ci waa Makka mukarrama ci jamono xal wakkal naa borom bi ne dénk nañu biyaa ci moom xamal ni ñoo xam ne day soo biyaa déet ñoo ñëpp kafri na ñu ne wuy weddi ko almuhaajiruuna ak ansaar la ci na mën borom ne ñoo ñi nga xam ne a ah daa gis ne leen allahu yàlla fi biru daawum seen jub ga yëpp nag iqtade jël ko yow feneen ko laayu ci ne ko ñaar fukki ñeent seen mbaax ga jël ko def sa poos ba noppi am lu ñu amul nag fi biru daawum seen njub ga iqtadi bu ko tekkee na nga ko roy de na nga koy jël ndax moom roy kenn dañ koy roy kon mboolem yàlla yónni dañ am ci mbaax jël na ko ba noppi jël loo xam ne ñoom amuñu ko te ñoom ñëpp jikko yi rafet lañ yore yént yàlla noox xam nga lu doon jikkoom ñeme coono junne xat yu mag juróom fukk la woote jàmbatu dara jàmbatu dara intal Ibrahima xam nga lu jikkoom tedd nga moo tax di diine yëpp ko nangu diine yëpp ko nangu yent bi jël na ko jël na ko jël na ko ak jaat yoonu yàlla Isaaqa yox ko ba xam ak yoo ayo ba xam nga suy lii seen jikko ñoom mën a muñ nattu yàlla mën a muñ nattu yent bi jël na ko daawuda ak doom ji suleymaan xam la moo seen jikko sant yàlla ci xéwal leen jox yent bi jël na ko yent yàlla yuusuf mu ak sant yent bi jël na ko yent yàlla mooy séran bu leer bi bu sall bi ak kawtef yu rëy loxom ba yetam wa yent bi jël na ko ñoom ñëpp ku nekk jikko bañ lay tagge yent bi jël na ko moo tax borom bi dafa bëgg daaw fa bëgg daaw muxtada seen njëb ga na ko jël ba ma noppi am lu ñu amul waaye bu ko tekkee na nga ko waxal waa Makka ba ay bi wàcc ci ñoom la woon la asalukum du ma leen laaj xale ci alxuraan ji ajëran benn pay bu ngeen di joxe déedéet in wa nekkul alxuraan ji ilaa zikraa ndare ak waaraate lil aalamiina ñeel mbindeef yi moo xam jinne doomu aadama la ñëpp ci bokk yem nag lil a la wax wa maa qadaroo màggaluñu ñoom yowoon ya léegi nag bi def yëpp la allah yàlla xaqa qadar yi dëgg dëgg màggalam déedéet dëgg dëgg màggalam màggaluñu ko is xaala ba nga xamee ne wax nañ ñoom yowoon ya ci yonent bi dañu xuloo ak ñoom ne ko maa ansala wàcceewul allahu yàlla a ah, basañ ci benn mbindeef bisañ ci dara yàlla wàcceewul dara boo dañoo meroon fàtte nañ tawraat fàtte nañ tawraat mu ne xul ne leen nag kon man anzala am moo wàccee kitaaba téere bi lefi bi nga xam ne jaabi yi andi na ko Moussa yonent yàlla Moussa mu nekk nooran di leer wudan ak njub dinaa te ñeen nit ñi yëj àloo na woo ñu ngi koy def ñoom yoxoo ne xalaatiisa ay pàcc-pàcc jëlu leen neex ne lii moo la yamul yàlla gërëm moo tax ne tuddoonaa ñu ngi koy feeñeel waxtu far ñu nëbb ka seen lu bare bare bare lu bare bare bare ku ñuy wax Fanaas bu ne Ashura Fanaas ak Malik bun Sayf ñu ñëw ni xuloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne maa ngi ni giñal ci yàlla bi nga xam ne moo moom wàccee tawraat ci Muusa ndax fekk ngeen ca tawraat ne yàlla bëggul ngóor koll ngóor koll nekkati ñoom noonu lañ mel seen mbàqee def ne gëfër léegi bu la amee nag mu naq di leen ne gis nañ ko kay léegi bu la amee yéen tamit ne ko anta xibrun saminun yow ngóor koll nga ngóor koll nga mu dal demee na ah yàlla wàccewul dara ci mbindeef wàccewul dara ñi ma àndal nag ni ko torox ca ñaan la donte Moussa la mu ne yaa wàcce ful ñu dara bi yow di déggee loolu nag wax jooju ñu mere ko ne ko ah xanaa yàlla wàccewul tawraat mu ne dama meroon moo tax maamat ma merloo gars yi ne ko bon yow folli nañ la gannaaw boobu mu ree wax lu ñaaw folli nañ la folli nañ la yër kaa bu asrab teg ko palaata ni ko kaam wala wut fa teg ba Malick bu say fi mbaq mbaq gi dafa réyoon ngóor ko lool borom bi ne na wa allimtum jàngaleef leen yéen yahood yi ci alquran ji malam taalamoo loo xam ne xamu leen koon antum wala abaakum di yéen ak seen maam ya mukk borom bi ne xul na leen allah subhanahu wa taala moom la de su ma sarum topp nag bàyyi la fi xawdihim ca li nga xam ne mooy seen batterie yàlla bonu ñuy fo waasa téere bii kitaabu ne ansal na wàccee nañ ko ñun sabal mu baarakoon ñu ne benn yedde mu téere ko jiitoon wali tun sira ak it na nga waar yunti bi wala ne yëpp ne dinañ gëm laaxir bi yawmal qiyaamati yawma seen julli ya dañ koy joxe ci anam boo xam ne noonu ko yàlla bëggee borom bi ne ak la aslamu kenn gën ta tooñ nag mën koo xam ne iftara dural na mu laaj ci yàlla kasiban aw fer mooy déclaré ne ab yonent la ci nekku yonent aw xala mu wax ne oo yow yow na ilay ci man te walam yu awa yowful ilay ci moom say un dara dara dara muy musalmatul kasaab ko man qaala ak wax ne ko soo tulee danaa wàccee bi la maa ansala ke lu mu wàcce allahu yàlla mu wax loolu bu neexee mu wàccee li nga xam ne yàlla wàccee ne ko borom bi ne wala tara boo gis alayka salaatu wasalaam isi salim bo nga xamee ne way isi saalimuna xam ne way tooñ yooyu le yabqa malaakatul mawti ngi gisu laa tam dee wala ay diim nga tala seen loxo kon nga gis lu métti métti na leen axrijoo génne leen leen ko al yawma tey i soxna def na fay moo xam ne dafay doyee dal ko ñu mbugal mais kuntum takkooloon na ci la nga nekkoon di ko wax ne laaj ci yàlla xel xaq du dul nga kuntum ngeen nekkoon xanaa ayaati wala kaafiratu tafam yi sa takbiroon di ko réylu kon ngeen gis loo xam ne lu rëy rëy la musil masul kasaab mag a zimatul kasaab dañoo wax ni bi suñu borom wàccee suuratal kawsari daf ne moom bu ko neexee mu wàccee saar ni gars yi déglu ma ñu ko bisimila mu ne inna aataynaaka alxaqa fasalli li rabbika wasxaqa nisaane ko huwal ablaqa yooyu mooy saara bi wàccee na di la saram mom il khulafa di kenn xamul lan la il khulafa kooku may usul masul kasaab waxul lool wax ya illee wala mu yoxa say illee sayu wala mu ne boo neexee wax li ngeen wax moo tax xale ku ne doomam beneen mooy ibnu Ubay bu neexee wàccee li nga xam ne bu neex nu moo waxoon ne moom yonent la yonent la te dëgg Abdullah ibn Abi Saraax Abdullah ibn Abi Saraax doon bind wax yi far murtat far murtat lu ibnu Ubay ibnu Abi Saraax mu ne bu neexee wàccee li nga xam ne moom la yàgg wàccee ci Muhammad ci la murtatee am ñu ne ci kooku la kon riwaaya bi ci lañ am wute waaye bu njëkk baa gën a siiw nag baa gën a siiw te mooy musal musal kasaab moom la de léegi bind bi leetar ne ko amma baadu inti bi ne jox ndaw ne ko fi na arda bañ naa nis fay ni si maa yow ko ba leetar ba yegg ci yonent bi mu ne yónent bi ne ndaw la mu yónni mu ndax yow d'accord nga ne moom yónent la mu ne ko waaw waaw nangu nañ ko kay ñu koy nangu nañ ko mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne bu fekk bu fekkoon nga xam ne ni yónni ku yónni dañ ko rey ba doon ma rey la waaye nag ndaw nga kenn la rey tontu ko leetar ne ko min hendi muhammadin rasulillahi ila muslimatil kasab amma baadu fil adlillahi yarusuha man yasaaw min ibadihi wala aqbatul muttaqina la ko tontu amul lu mu gisul nag amul mu déggul moom yonent bi moo tax borom bi ne euh, laqad jiitumuna wa laqad jiitumuna ñëwee ngeen ñu bu ngeen dekkee furaada kenn par kenn kama xalaqnaakum ni leen bindee woon awwala maratin ca njëlbeen nga ba ba ngeen di juddu nekk ñu raf la amu leen dara وتراتو نين باي ما خولناكم دا نين جوخون مي خيول يالا ياك نيبوت غا وراسوريكم تي سين غناو غنا موي تي ادنا بروم بينا واي وخيم نك نالين ما نراكي سوني ماكم ñu ànd ak yéen jufaakum seen way tunee mooy xërëm ye yéen wax ne ñu ngi yàlla bokk nguur gi des ñi nga xam ne saahamtum yi ne ko déclaré woon ne andoom ne ko ñoom fiikum ci yéen su raka ñoo bokk borom bi nguur ga laqad taqata borom bi ne dagg na mu bay na kum seen diggante bu dala sànku na mu an ko wali leen maa kuntum tasamoona da ngeen déclaré woon ñu laa naka borom bi faaliqul habbi mooy kii xor xar saal bi moo xam saalu ndar ko la ak lu mën a doon faaliqul habbi mooy xar pepp bi kay pepp bi nga ji muy peppam basi bi wala bu saañoo wala bu suna moo koy xar fett ko gàncax génn ci tëdu yàqu ñu kenn ko mën day wane kattanam wan na waaye ak saal bi itam mooy tàndarma la wala muy darkase bu rëbbi na maa koy fettal gàncax génn ci tëdu yàqu yoxu jur xaye mooy génnee añu dund mi la mayit yi ci ko faatu nañ ko fii mu xool jur mayit yi mooy génnee aji faatu mi naa yi ci lu dund cuuju ganaar génne ca nen ba nen mayit la cuuj bi xayyu la mu ngi noonu mu xayyu minal mayit borom bi ne zaalikum seen kooku la nag nga xam ne mooy génnee lu dund ci lu dee allah mooy yàlla fa ana tuufakoon naka la wàññeef leen ba ngeen ba ñu wétal yàlla faaliqul isbaayi mooy xar suba gi an faaliqu subi rek bu dee foofu mooy xar suba gi leen commencé jolli dana nga wàcci bu dee wajaanu layli mooy def guddi gi sakanal mu nekk dalukaay wa samsa jant bi nag wal xamar ak weer yi waxu ñu nekk ci regle daf koy nekk ci regle jaanu layli sakanal wa samsa ñu ngi ko ataf maal ba jaaxelun allay la jaaxelun allay la moo tax mu ne wa samsa ma tax mu nasab ko ndax dañoo jar layli bi moo dañ jar layli bi kon wasam suñu nasab ko kon fi ñu ko fan lañ ko ataf ca maxal ba ko ataf ca maxal ba ci lañ ko ataf borom bi ne saalika i tudd nii nag taqdirul aziz yi mu ñetti lekk aji not nguuram gi aji ci nguuram gi ali may aji xam mbindeef yi wala sama ki nga xam ne jaxal def na mu lekkum ñeel leen ndajom biddiw ngir lan li tax taloo ngeen gindeeku biyaa ci moom fi zulumaatil barri ci lëndëm yi jéeri ji wal baari ak géej gi mu ne bi ne xar fasal naa leeral nañu ayaati kaaw teebi yi la xamit ñeen ñëpp ñi nga xam ne yàlla mën a danañu xam tey setantal wala si may ki nga ne ansaakum moo leen sos ma moo leen bind rek mi na fi ngeen tukkee ci bakkan boo xam ne waaye jëti benn la tamit aadama fa mustaqarun am na kooku xam nga sax ci ruumu yaaje bu mooy mustaqarun sax ci ruumu yaaje bu mu sax ak kuy dénk ci ndiggal way juróom la ñu rek fi nekk nag koo xam ne leeram ga mu ci ndiggal way juróom la ak koo xam ne mu ngi ci ruumu te fasal nal ayaati borom bi ne leer lan la kaaw te wii la xam nga xam yëqoona dañ dégg li ñuy wax wala si mooy ki nga xam ni an sala wàcc na min samaay boobu ci asamaan ndox mi borom bi dafa axrañ naa ñu génnee kooku mooy iltifaat mu nel xay bi di nga de ila takkalum ñu génne bi ca ndox ma na nabaata kulli sayin gàncax gu lépp lu mën doon gu ñu soxla faxrañ naa ñu génnee minu ca gàncax ga xajiraat bu na tax na tax ndox li ñu génnee حبا متراكبا تكبر نيت فتوكلو وقم بيبل منتون وقم بجيل ولا ساجا ولا سنة ومن النخل اكي تاندر ماي من تنها توكيجا لي خنا مو تونتو ملا واخ كن وانون اي تيغ يو خامني دانيتون دافاي جيغا سوف لول بلا نيخي توك دغ بلا نيخي تخاو دغ هو جناتين اك اي تول يو خامني من اناب نيغا توكيجا ريفي وسيتونا اك سيتون ورمانا اك غرنات مو نيك متسابين يو خامني دافا نيرو وخير متسابين اك يو خامني من سو نغي خول نغي دو ادمي الى سمري meññitam ba xoleen ko isaas mara nde meññi na moom wajane ak ñoram nga bu demee ba ñor bi salikum nekk na ci lu laayatin ay kawtéef li xam ñi nga xam ne yëpp ñoom dinañu gëm borom bi borom bi na wa jaxaloo def nañ lia ñeel yàlla ñoom yëfe de suraka way mu kan ak kan la mu jinna yi ñoom seen bopp ñu ngi di leen jaamu wa xalaqahum te moom borom loo ñeel borom bi bañ ay doom yu góor ba xel na Usayru doom bu góor bi ñi ne malaayikatu doom yi borom bi ne na ma sellam taala jomb na ma may yusifoona wata la ñuy melal sama waate mooy ki fente asamaan juróom-ñaar wala ardi ak suuf juróom-ñaar borom bi nekkee loo ñeel borom bi wala dun doom wala mu ko nekk loo ñeel ko saa yabatan di àndandoor jàngale ne fi lu rëy rëy rëy ne nit damay amee jabar nu may amee doom te amul jabar wa maa yakun lahu waladun wa lam takun lahu saahibatun loolu de yëm na man yàlla nit damay amee doom te amul jabar man yàlla yéem na ma wa xalqa bind na ma kullu sayyin lépp lu man don loo xamni ne lu ñuy bind la wa huwa la ma yaqan bi kullu shay'in lépp lu mën doon saalikum seen ko nag allahuma yàlla rabbukum mooy sen borom la ilaha illa ben yàlla ilaha wa kullu moom xaaliqu kulli sayyin mooy aji bind lépp lu man don fa bu do ngeen ko jam ngeen ko wetal wa moom borom bi qadir aji wakilun mooy aji wattu ala kulli sayyin lépp lu man don laa dur ko du ko dab al absaaru gis-gis yàlla bët du ko pek dedet bët du ko pek te mom mo pek lépp nak waaw tudd ko am borom bi man sama borom sama seen borom bët du ma peeg du ma godee donte nag yomal xiyaamati yéen bi wax na ni da ngeen gis seen borom ñu ngeen gisee weeru badar weeru badar di wax na ko dañ gis yàlla ci yomal xiyaam ni ñu gisee weeru badar innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri xadis bi noonu la tëddee noonu la tëddee bu joon yomay nasirah, nadira nasirah, rabbiha nasirah. ila rabbiha nasira ila rabbiha nasira o mo borom bi yidri ko moy dab al absara gis gis yi mo peg lepp dar du ko peg do peg lepp bu xam xam nak ñom ñeneñu yalla dinañ ko gis fiñ ko tek moy ñu ne yeen yalla musa mo borom bi dama bëgg gis te Moussa ñu mul ñaan yàlla lu lu lu mënul lekk lu jomb du ko ñaan yàlla mukk ne comme nag gannaaw Moussa moo ñaan borom bi nag ne ko dama bëgg a gis kon gis yàlla mën naa nekk buñ ne Moussa gis na ko de waaye mën na nekk Moussa du ñaan lu jomb sañu ko sañu ko gën ko gisu ko nag lépp gën a wér dañu gisu ko ndax dafa xëm dafa daanu xëm te borom bi moo ne maa feeñ ca doj wa man yàlla lu toll bën bën pusa Moussa xëm dañoo mokk rupp rupp rupp te la sax la feeñ sax du yàlla de xam nga lu feeñ leer ga leer ga moo feeñ leer te leer yi tuuti la tuuti leer ga tuuti la te gi nga doj wa bu leen yaakaar ne daj na comme yii de montagne la montagne la <laughs> montagne la montagne bi dafa toj mokk rupp ni doom mu sàqum te leer leeru yàlla moom feeñ waaye jëmmam yi jëmm ja xajul fenn déedéet mun tañ baa mokk ne Aysa nag moom dafa la yonent bi ne ko ndax gis nga sa boroom yonent bi ne ko déedéet borom xam-xam ne nañu tax mu na ko déedéet waa Aysa gunne la mënu ko dégg mënu ko dégg te ku nekk da ngay wax moom te marta boobu noonu fa marta waan toll mun naa si déedéet waaye lépp ñoom nag dinañ gis na borom moom ba mu rañaanee lépp ci ñoom nag xam nga lu tax fa mu cosaanoo li ñuy fanaaw fa la cosaanoo fanaaw fa la cosaanoo dafa dem ba ñoom ñaar nekk benn jëmm amut maam rek amut yàlla tax bu suñu ma wara oho wara dem ba yegg foo xam ne amul ndeyjoor amul càmmooy amul kaw amul suuf mu jaxasoo borom bu jax tàkk li nga jaxasoo moom nag jaxasoo moom dugg ci biiram mu dugg sa biir xanaa gisante ngeen xanaa loolu demee nag loolu demee de loolu demee de jaxasoo na ñoom ñaar ba dara neetu fa wuy dirgul absaara mooy ki nga xam ne mooy dab mboolem gis-gis yi moom borom bi wa latiifu mooy aji ñëwent yi ci soppem yi alxabiir mooy ki ne xam piir nag borom bi ne yéen mbindeef yëpp nag xat jaakum xat jaakum na leen basaayiru ay lay leer nañ yoo xam ne mi rabbikum ñu ngi tukkee ci seen borom fa man absara koo xam ne gis na ko gëm ko fa li nafsi yi ñeel ne ko tuyaa ba boppam wa man xam yeeku gumboona mu walit ko fa alaa war na ko musiba boppam wa ma ana den man nag aleykum ci yéen baafe sin maa ji fuglu leen déeréet wasaalika nekk noonu ñu leeral leen lii nusarrifu la ñuy leeralee al ayaati kaawteef yi ngir nit ñi nañ waaru wala yaquloo ak ki ndax ñoom yéefar yi naan dara kii dafa jàng de kii dafa jàng dafa jàng borom bi ne wala nu buñ nan nowoo danañu ko leeral ñi nga xam ne yàlla mën a danañu xam borom bi ne itam bi loo xam ne wax yow yow na ko léegi mu jëm ci yomi rabbika tukkee ca sa borom laa ilaha déet benn bor ilaa wa ku dul borom bi wari na ko du mooy xam ne musique na mu def bokkaale yi wala sa allah wa maa tajidu alayhim bi wakiilin ngay aji leen forcé pour ñu gëm mënul nekk wala tasubbu bu leen ŋaññi da si ñi nga xam ne yeddoona dañuy jaamu min doy naa wa def yàlla fa yusubbu wala ñu ŋaññi yàlla wax dëgg wan ci nooñal wasul man bi xëy yeen lu xam ne xam-xam kay waa Makka ñoo dem ci Abu Taalib Abu Taalib bàyyi si naa li ne ko waxal sunu mbokk mi nag bu bàyyi laata Musaa Manaata Xubal na leen bàyyi da bàyyi suñu yàlla yi kinti boolu ko mu ne ah ñi de say bokk lañ sa doomu bàyyi lañ mu luñ bëgg mu ne ko liñ bëgg mooy nga bàyyi seen yàlla yi ñu bàyyi sa yàlla ji Abu Taalib ne ko ah lii wax nag neex naa dégg comme li ñu bëgg loolu la ñox naa dégg nag yent bi ni waa màkk dama leen di laaj benn mbir loo xam ne boo leen ko joxoon ndax da ngeen ma jox benn kàddu goo xam ne bu ngeen waxee kàddu ga rek moom arab yi moom ajam yi adduna bi yëpp topp seen kaw benn kàddu boo xam ne bu ngeen ko waxee rek moom adduna bi yëpp Abu Jahlin ne ko waaw waaw buy fukk sax dañu ko wax buy fukk mu ne wax leen laa ilaha illallaahu wax leen loolu laa ilaha illallaahu rek wax leen ko ñu ne ko ñoo lànk ñoo lànk bañ nañu xam nga li am da nga bàyyi suñu yàlla yi foog nga bàyyi suñu yàlla yi da ko bàyyi nag Abu Taalib ne ko defal liñ wax mu ne ko yow suma bàyyi bàyyi tax bu jëloon jant bi teg sama ndejoor yor sama càmmooy bu mu bàyyi lii du ma ko bàyyi ndar yàlla ndeg ñëw ak mbiram gaa ni ñokket dem yàlla wàcca aay bi nag ne ko bu leen bul ngañeti seen yàlla yi kon dañuy fayu te du la neex du la neex ci bu wàccee mu ne wala tasuboo bu leen ŋàññi allazina gaañ nga xam ne yedoona dañuy jaamu من دون الله وزير الله تمشي القرية في يسوع الله جمع جيال عدوان تنوزل لقد يعلم من تلو خم خم برام بني كذلك نكنونو نلير للي أجن ملير ملير رفعت لجن قليا زيننا لي رفعت لكل أمة ñeñ bi faxeer amalum seen jëf ya mo xam lu bon lu baax la du ma topp nag mar joom seen delluwaay laara bihim jëm na ci seen borom fi ne bi ma xamal leen mais kanu ya'maluna lañ doon jëf mooy mu fay leen ko rek wax sama giñ ni ñu yem yëfar yi bilaaj yàlla jaada ay maaniim seen daytalu ngëñ gi nañ la in jaadu wala bu ñu ñëwalee leen ay duñ kawte li nga xam ya ko fenté yow yeneen bi day ñu na dinañ gëm yaa ci kawte ba ko ñu leen innamal ayaatu xam ne kaawteef yaa laa nga fa yàlla ma yoroon na ma yoroon ko dan mo leen xamal sax inna naka moom kaawteef ba isa jaa ñu ñu ñoom lay ñu duñu gëm leen ko xamal bu ñëwee duñ ko gëm te ba ñu xalaku wa nuqallibu danañu a afidatuhum seen xol ya bu duñ nangu dëgg warsaruhum ak sa borom ne sax naa wàccee nañu léegi ñoom al malaayika ta ñu dekkal way dee ñoom ku sëyin lépp lu mën doon bu leen nga def xubulan bu nekk ay mbooloo boo damee baaxoon bi xubulan bu la neexee nga def ko noonu wala xibalan moo ñu jëm ak ñoom jaxaran boo kasara baaxoon xibalan bu ñu ko defoon rek makaanoo nekk ñu li yom na ngir gëm mukk mu ne illaa wante an isaa wala laa yàlla wala ki nekk lëpp ñoom yecaloo na dañoo réer ñu ne yonent bi Moussa dafa amoon yet Isa am taabul Saalihu am gileem yow defal dara yow tamit nag defal dara ñu mën cee jàpp ko mën laa gëm waaye yàlla am yónni rek te defoo dara ah da def dara nag yàlla ne ko bañal boo defee dara it duñ gëm te buñ gëmul rek ala ko te sa xëy ñoo fi ba abadan kon bul def dara moo tax mu ne wa kazaalika nekk noonu jaxal naa lañ defee. li kulli nabiyyin ñe bépp yonent xadd woon ay noonu mais sayaatinal insi seytaane yi doomu aadama yi mu ñu féttarlu yi wal jinn ak ginne yi ñu féttarlu yooyu dafay jaax-jaaxle doo ko tekkee wax yu dafay jaax-jaaxle baa dum leen ni ci ñoom ilaa basin jëm te ñeneen ña su rafal xawli ay neeni wax ay neeni wax xuróora ngir naxaate rek walaw saa bu neexoon na mu rabb ko sa borom maa faalu duñ ko def fasarhum na nga leen bàyyi nekk ma yaftaroona ak la ñuy duur di ko fente xam nga loo ñaaw rek mu ñaaw wala day wax baat yoo xam ne baat yi arab la olof ñaawal ko xam baatu sar fi la ko olof jëlee fa sarhum bàyyi te olof boo wax mu mer te baat la arab bii lañ jël di ko def lu ñaaw ci suñu làngam ñun olof sarni wa man xalaqtu wahidan sarni wa man xalaqtu wahidan wa ja'altu bàyyi ma man yàlla ak ki may bind man kenn jox ko alal ju bari fatarhum na ngi leen bàyyi ma yafturoona ak la ñuy duutu ko fente léegi nag mu nekk wax ju ñaaw ci wolof uy sat xaa ak nag na xerewlu ilay ci coox caaxaan ya afidatul lazina xool ñi nga xam ne laa yow na duñu gëm bilaa te yomal qiyaamati wala yardawu ak nañu ko gërëm wala yaxtarifu ak it nañu faa gëndeku maa lax nuhum ñoom muxtarifuna dañ koy faa gëndeku borom bi ne ab taqi damay faa sàkku man xale laay ko dul yàlla xakka man ci àtte maa bañ du ma sàkku mu doon suma xaat yi wala sama ki nga xam ni an sala wàccee na mu ilaykum ci yéen ak kitaabu téere bu tedd bii muy alquran mu fasilan muy leeru nañ والذين كان يغا أتينا اتيناهم الكتاب يخون ني لين تيري بي يلا من خامني ني اندو نك القران جي منزلون لي ني واتي لا من ربك تكاي تي بروم بلا خ جي دغ فلا تكون نبل نك ني مونتي نا توي سي كسا وتمر من مكلمات ربك سبات بروي مي اتي يا تكويا سي خان تي لو دغ وحدلن لا مودري ديت بن وتر هلك كلماتي ني الكادي بروم بي وسمي مي اجي دغ لو خامني جات نكو واخ ان لي مي خام ليپ وين في الارض ci ñu ne ci suuf si yu di looka ñu sànk la an sabilillahi wala si yoonu yàlla wi waaye in yetti boona ndax topp ñu ñoom ñëpp lesa na lu mooy njortu donc nag borom bi inhum déen ñoom ilaa yaxrusuuna ndara ñuy fen inna rabbaka sa borom huwa aalamu ma aji xam man man yeddilu ko sànk na mu an sabili wala si yoonam wi wa aalamu ma aji xam bil muhtadiina ci way gindeeku ya fakkuloo euh, na ngeen lekk ma sukira da tuddeef na it mu lay tur yàlla xale ci loola booy rendi ñu ko dum nekk ngeen bi ayaatihi ci kaw teefu borom bi subhaanahu wa taala moom ñu di way gëm ko borom bi dama maa làkkum lan moo leen ñeel ba ala tàkkuloo du ngeen lekk ma sukira ci la tuddeef na mu ismu laay tudd yàlla ale ci moom ca rendi ga wala ca ga wax a leeral na moom borom bi lakum ñeel leen maa la nga xam ne xarama araamal na ko aleykum ci yéen ci hurma aleykum maytatu borom yi ma turirtum na la ngeen lorof na leen ilay ngeen jëm ci loola bu ngeen loroo nag ñàkk kon dagan na ngeen lekk loo xam ne rendi wuñ ko wuy nekk si la nag ñu bari nag la yuddaloo na danañu sànq dàmm ko keneen bi waaye bi seen bànneex bi xale mi dul benn xam-xam ina rabbaka sa borom huwa a'lamu maa xam bi muhtadiina ca way jalgati ya wasaroo na ngeen bàyyi saahiral ismi way feeñi bàkkaar yëpp wa baatinahu ak nëbb yëpp inna llazina naka gaa ñi xam ne yegg si woon ñooy fàggandeku yima bakkar suñu gisaan de len fay yawmal qiyaamati maa kaanoo yaftaroon yaxtalifoon na nekkoon di ko fàggandeku wala ta ko bu leen nek mukk nak ima ci lépp lo xamne ne ñu nam us ko deful ismu ya tuddu yàlla xanaa ci lola moy dafa de wala ñu rendi ko te wax bismillah ta wala bismu mu daga nut daga nut léegi nag bu la jullu ko rendi julli do te waxul bismillah dagan na ci ñenn borom xam-xam kon ki muy waxal mooy lu médd wala nga ne bismillah ta wala bismillah osa yi mel noonu waaye jullit moom lu mu rendi waxul bismillah am ñu ne dagan na Ibn Abbas nag loolu la wax doon dama ko tey sax waxul bismillah wala mu fàtte ko dagan na Ibn Abbas loolu la wax te mooy xibrul umma mooy xibrul umma wa innoo naka lekk ga la fisqun borom bi ne génn topp la wa inna sayaatina naka saytaan yi la yuuxuna dañuy jaax jaaxle ilaa awliyaa'ihim ci seen soppe ya mooy yëfër ya luy jaadilookum ngir ñu dagg daggante yéen daganal meddi mi win ataatumoohum def topp ngeen leen innakum yéen kon la a way bokkaale ngeen de aw man kaana ndax koo xam ne nekk na mu maytan da aji dee muy koo xam ne yëfër la fa ayeynaahu ñu dundal ko وجعلنا جل هلو نيال كنور الليل يمسي بي مجي دوخ نات جي نيت كما مسلو لمي كو خاني مثالم في سلمات جي ندم نيك ليس بقارج دوم اجي ген منها تا لندم غا موي يفر ذلك نك نونو يسوين لرف تفل سينا نيال نيغا خامني ما للكافرين نيال يفر كاي ما كانوا يعملون دنج دون جيف أه، دانيو وخني ايبي كيم واتيون دني ابو جهل Hamza dafa dem rëbbi wàññeeku di ñibbisi fekk Abu Jaalin di ngaññi yonent bi fekk yonent bi du julli sujjóot jël mbàq ak mbaam satt ko ci ko yonent bi mbàq ak mbaam ñoo ko Hamza Hamza ñëw fekk mu ngi yore gi xalaat bi mu rëbbee di ko dóor ak Abu Jaalin ci bopp bi di ko dóor nag fekk boobu tuubagul nag Abu Jahl ko yow xanaa gisoo kii li muy def kii yàq na dikk dëkk bi sensé na nit ñi dofaloo na xel yi ngañu na fi yàlla yi kontoon na dinay bàyyi xam si ne kan moo la gën a dof ku la gën a gàtt xel yi ñuy jaamu ay doj wala ne ashadu an laa ilaaha illallaahu wa anna muhammadan rasulullaah fa la tuubee xam sa foofu la tuubee moom رجعنا له النور يمشي به في الناس كما مثلا كو خامني مثالم في ظلمات نتا لندم ci xal ji mer ci genn mako nak كذلك nek nonu ñu leral rafetal julit ñi muy gëm yalla gi zuyina rafetal na lil kafirina ñel yefari ma kanu ya'maluna lañ doon jëf borom ne ko salika nek nonu jaal def ni ñun sa borom fi kul khaytin bépp dëkk bépp dëkk akabira mujrimiha ngonki kaccoram ya dëkk bo dem ngonk ya ñuy kàccoor ya xam nga lu tax ku yàlla mos a yónni bu ñuy fekk fa ay patron dañuy lànk ndax ñoom li ñu gis buñ buñ gëmee rek topp ci koo gën koo gën a ko amul dara ñu bañ léegi ñu amul dara nag ñooy njëkk a gëm mais akabira mu jëm yaa nga ngi kàccooram ya yem ko ngir nañu fexe fiyaa ci dëkk ba ngir wàññi ñuy gëm au moins yem ko na duñu fexeel mukk ilaa bi am posim ndare seen bopp o ma yesoona waaye yëguñu ko wisaa jaarum dañoo woon na mu leen ñoom yëfaree ayatum kapte boo leen yéen yonent bi li mu wate dëgg la xaaral ñu ne lan nu'mina du nu gëm mukk ci moom xataa nu'taa ba joxeef ñu misla ma ootiya kam ni joxeef ne ko rasulullah yi ndaw yàlla yi loolu la ñuy wax de fii nag ñaan fi sunna la ñaan fi sunna la diggante ñaati ñaati baat yi alxuraan bu mu daj fii rek la am nga xam ne amul arfaat fiin am na yeneen sax dafa am arfaat fiin ñaari allah yu dend waaye mu am waaw bëri na ci alxuraan waaye bii nag fii rek la am moo tax diggante bi nga jàngee bu njëkk bi bala nga jàng bu ñaareel bi ñaan fi sunna la maanaam par exemple lu jàpp la léegi nag ñaan bi nga xam ne lay wax ne moom la jóg ku fi ñaan mu wax ko ngeen dégg ko ñaan ko ñun ñëpp. مي اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي تجارع فلم تجره ومن الذي سألك فلم تعطه ومن الذي تعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تكفي يا قوساه يا قوساه يا قوساه بك أستقيس أقسني يا مقيس بلا نيخ ديفك جامو أقسنا يا مقيس wax di nii wala nga ne wax dinaa hidaayatan min indik wax di xawaa ijinaa indi na moom wax di xawaa ijanaa wasfi wax di duyoonanaa rafet lanaa wali abaayinaa wali ummaatinaa bi xaqli quraan al-aziim wa rasuulil kariim di xam ne ko yaa arhamar rahiim ñaan gaa ngi noonu ñaan ngi noonu ñu ko yàlla defal ñu ko dañ jàng ñëpp faate jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla faj suñu aajo dàq suñuy jàngoro ba ci koor gi ci jàmm ak salaam yenn yàlla faj aajo yi saafara jàngoro yi way jutu yàlla yërëm leen ñu fi tax yàlla fi yàgg te wér jaay sallallahu alayhi am soxna am ñi am te bëgg ñaareel yal nañu am jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi jàng yal nañu xam ñi liggéey yal nañu am ñi wér yàlla yokk seen wér ñi wérul yal nañu wér jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nangul ñu te jéggal ñu yàlla yàlla nangul ñu te jéggal ñu nangul ñu te jéggal ñu gàcc tey suba dinañ ci mucc mucc la ci yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqu de alhamdulilah mu ne allahu yàlla aloo ma aji xam parce que yéen fu muy def salaat yi ay leetaram moo xam ne ko yelloo gaa yi kaas droit soo yësi wu dana mu jot li si ñi nga xam ne ajër moo kàccoor lañu saqaarun toskare saqaarun nga xool lu ni mu jafee nga fataa saadun bi mu cos toskare nga kasara ko mu tekki ay gune yu ndaw siqaar siqaaru ay gune yu ndaw dañ laay fi yàlla waa saabun wal moo xam ne shadidun mu tara tar la mekano ngir nekkoon nañu yëpp doon di ko fexe borom bi ne fa man yuridu ko bëgg na mu allahu subhanahu wa ay yaat yow mu gindi ko yasrax dafa yaatal lool sa doroo dënnam ba li islaam yi ngir mën a xenu diine ji ku mën a bëgg a gindi day yaatal sa xol bi nga laa biir neex deret ku la gis sa bañ leen njëkk a séen moom yuridu ko na mu moom borom bi ñu jëloo mu sànk ko yi xel dafay dem sa doroo dënnam ba day yëqan mu xat lool xat bu jàggi dayoo sax ka annama yasaadu mel ni koo xam ne dafay yéeg moom waaj fi sama yi ci asamaan juróom-ñaar alquran moo ñu firil apollo 11 ñu bari jéem xamuñ ko apollo 11 tubaab yi ñoo noonu dañu seeti weer wax ñoom ñoom ba ñëwee ñoo wax ne oxygène bi ci kaw dama daw mënu ko noyyi mu nekk ñu nekk ka annama yasaadu fi sama moom moo tax ñu nekkoon ci suuf ñoo leen di conduire ñuy dem. dem nañ ba ca weeru nag ba yegg ca waaye jant bi moom mënuñ fa dem ñu bëggee dem jant ba dañu wut benn golo mu lañ jël essayé ko golo gi dee ñi meetu ñoo dem dañ muus ba jàgg dayoo <laughs> dañ yow ba jàgg dayoo <laughs> wante weeru moom danañ yegg ci moom danañ yegg ci weeru ñu wax Apollo 11 am ñu d'accord am ñu d'accordul waaye yegg nañ ci moo tax kan na ma yasaan du fi samaa yi dana dafay xat comme kuy yëg ci ko asamaan juróom-ñaar borom bi ne kasaalika nekk noonu mu defee moom borom bi yashanu laahu day defee borom ricca li nga xam ne mooy mbugal mi ala la yi ñi nga xam ne laa yum na na du gëm waa sa borom bi ne lii nga xam ne ci nga nekk nag yow Muhammad siraatu mooy siraatu rabbika mooy yoonu borom bi mustaqiman ma ji coow na amul dëgg-dëgg xat fasal naa leeral nañu ayati kaawteef yi la xaw mi ñi nga xam ne yezakkaroona danañu waaru defe naa fii de mooy ruban bi yéen ñu yore xattu bi fii ruban la de loolu daaru salaam bi ah ruban la de est-ce que duñ dem ba jëndi suba wala baax na ñu suba sa ci kanam la tax ci kanam la bëri ay xisa kanam am tuuti ay xisa moo tax mais fii nag comme bëri xisa yi bëriwul ñu dem tuuti rek borom bi loolu sax na ñeel leen daal salaam yi kër mucc ga moo tax mag ñi mag ñi ñu yeewu lañu tuddee ko seen dëkk yi ak seen quartier yi ak seen quartier yi ak seen quartier yi ak seen quartier nag indar bi fi seen borom moom borom bi wala yoom muy aji méngoo seen mbir mais kanu yaamaloo na ca li nga xam ne ñu ngi koy jëf borom bi de waxtaliku yow ma naasurum lu bañ leen di pang yaa masalal jinni mboole yéen jinni yëpp aji takk sartum sax ko ngeen a bari mi ne insi ci doomu aadama di leen beeloo di leen dëngloo wa qaala wax na mu awliyaahum seen xarit ya ñi ñuy topp nag mi ne insi boo ci doomu aadama yi rabbana suñu borom istamtaan dafa bànneexu bax dunaa leen ni ci ñun ba den ci ñeneen ña bala xanaa jot nañu ajal naa suñu dig bi li nga xam ne ajal tale naa yaa ñu ko digal kat xaala moom borom bi ne leen nag annaaru sawara maswaakum mooy ñëpp xaali din ngeen di wéy bi sa fiyaa sa war a wa illaa maa sha Allah ndara loo xam ne soob na yàlla ci ay yoo xam ne da dem naan ci jëyim génnaat ñëwaat lekk seen sa borom hakimun ko xereñ ci jëfam la alim ko xam jaamam yi la wasalika ne ko noonu nag borom bi ne ne wali li ñu méngale ba da saalim yi ne leen ci woy ya ba daan ñeneen ña borom bi ne ma kaanoo yegsi boona ngir sababu leen ngeen fàgg nekku ci ay tooy yàlla yaa masalal jinni eh, yéen jinni yi wala insa ak doomu aadama yi ala tukkee ci yéen ba ween ñu doon def yaqusoo ñuy nettali aleykum ci bi xaala ñu ne say naa seetal nañ alafuda suñu bopp na andoom nekkoon ñoom ñëpp kaa nekkoon da way yëfam borom de saalika nag yebal gi yebal ndaw yi mooy an lam yekku ngir bu mu nekk mukk rabu ko sa borom te du mos a nekk mu nekk alquran di alab ab dëkk bisim nañ ko tooñaange wala te ñu dëkk ba xaafiloon dañoo sàggan yàlla yu nu fa kenn bala may yar alak benn dëkk dama yónnee ndaw ñu bañ ma doog a alak ña may alak wala kulli dara wala kulli ñenn ku mu ci mbindeef yi wala way jëf yi dara jaatu ay martaba yoo xam ne dañ leen ko fay bi ma amee loolu te leen jëf bu dee ba ma rabbuka sa borom bi xaafiloon muy aji bàyyi am ma yaxmaluna la ñuy jëf yàlla ne du ma ko bàyyi wa rabbuka sa borom alxaniyu mooy ko jël sëkk wala si jaama bi soxlaalu kenn dara dara soo raxmati mooy bëri yërmande ñeesa bu ko neexee yusikum mu demee leen yéen jaama doomu aadama yi boo yastalifa mu wutal min baadi ko seen gannaaw maa yesaa lu ko soob ci ay mbindeef borom bi ne kama ansaakum na mu leen sosee min suriyati qawmin ngeen di ko ñëbatu aw nit aaxiri na ñeneen bu ko mu demee leen da ngeen xam ne inna maa tawaadoona naka na laa atin aji mi yëpp ay ñëw وما أنتم ديجن معجزين نجن وي فات برم بي ديجن قلنا لن يقم ينسوا نجد يعملون نجن جفا لا مكانكم كم نجا قمنا مجن بير إني من حامل عجي جفلا كم تمن بير وسوف تعلم من قلت نجن قم نك نجن قم ما تقول قدر من كل ونيا عاقبة ذلك قدر فرقة ولا بين إنه نكل يمير تمير لا يبلغ تخم كل أسالم من ويتوه وجعلوا دفنا نيو لا نيا يلا ما سرا تلقى قلنا مم لم بندم يلا من هاي من هاتي جنبيتي والأنامي أكأيجو نجي من أبشر xaj ci digg ba naan lii yàlla ko moom li suñu xërëm yi faqara ñu ne sa lii lillaahi sax na ñeel yàlla bi sax mi seen waa sa lii li surakaay naa ñeel suñu suñu xërëm yi borom bi ne fa ma kaan li surakaay yi lépp loo xam ne dafa nekk ñeel seen xërëm yi fala yesul lillaahi yegg ci yàlla de mukk wa ma kaan lillaahi lépp nekk ñeel yàlla fo wa yesul dina yegg ila surakaay yi seen bokkaale ya saa bon na ma kaanoo yaxkuma la ñu bon wa kasaalika nekk noonu borom bi ne zuyyina rafetaleef na wala sax yéen a rafetal na li ko si ne ñaan ñu bëri nu ma a génna ngeen bàyyi foofu grammaire bi nag xat la xat la awlaadihim surakaa uhum xat la awlaadihim surakaa uhum mardabu masdar daaf mafoon faaxeel ba xat la awlaadihim surakaa u mooy faayal bi ñu rafaa njàngil la nag waaye du ñëpp du ñëpp du ñëpp dafa am jànge suyi na dafa am jàng suyi na ràkkabal ko boobu nag danga naan xallu ngay wax xallu xallu da ngay rafaa xallu bi boobu nga naan xallu awlaadi yi dafa njàngil moom dégg nga ki la doon saye na la bind moom na li kasirin min al musrikiina xatla awlaadihim rey seen doom yi sunu kaawum sunu bokkaale ci jinne ya dégg nga lii yur doohum ngir nañu delloo leen ci alkande ga wala yël gisul ak nañu jaxasaale ci ñoom dinoom seen diine ja wala sa la bu neexoon yàlla maa faaloo du ñu ko def fataro na ngeen bàyyi maa yefturoona ak lu ñuy fente du ko dur waqaala wax nañu ne haasi lii day anaamun ajur la yoo xam ne waasan ak mbéyteef ci jurun duñu xaraam man la de laa yéen ma laa yéen laa yéen xam waa du ko mos illaa man na saabu la ko ñu soob jigéen ñi duñ ko mos ak gune yi borom borom bi ne bi samimi te seen déclaré ga yoo xam ne xurima na sóoruha gannaaw ga day arama wane xamul ak yoo xam ne laa yëkkuroona duñ tudd isu man laay tudd yàlla xale yaa ci moom bu ñu koy rendi iftiraan ngir dural na xale ci moom borom bi say gis say gis yim fay leen mais kaanu yefturoona dañ doon dur wa qaala wax nañu ñoom yéefar yee dama fi butooni haasil anaami di nekk ci biir jur yii asitun dafa sell wecc si ko naa ñeer suñu góor ñi ñoo ko jagoo wa muharramun dafa nekk luy xaraamal ala aswaajina suñu soxna yi mooy suñu jigéen ñi wi nekk ni nekk na nag maytun bu dee kaana bi kaana na nga rafaa ko nag bi nekk dem dem am na maytun medd bu fekkee am na foofu ñoom fii ci medd mu sadaka way bokk lañu ko say gis ñu dina fay la moom borom bi ba seen melal ga bi ak ki mën ko حليم أجقم من دفع ملا دخل الله فيه بخصوص الكريم